ne wàllum économie la ñu say waxtaane ñu tuddee ko assise économique yéen kaay gi ne na la nga xam ne moo ko tax a jóg bokk na si secteur privé bi ak état bu Sénégal toog waxtaan ëllëgu réew mi yéen kaay gi di réew mi ko di jee nee na ni ki démb seen ndaje ma bëri ay kilifa yoo xam ne teewoon nañu fa Abdoulaye Sow mi nga xam ne mooy njiitul chambre de commerce bu Ndakaaru moom nag daan nay rafetlu bu baax a baax taxawaay bii nga xam ne waa MEDES amee nañu ko ak bi nga xam ne waa MEDES xalaat nañu ko ngir ëllëgu économie réewum Sénégal président Mbagnick Diop daat nay wax ne secteur privé bi ñoom seen wàll ci wàllum économie bi nan la ñuy def ba relancer ko danañu ko joué ba mu mat sëkk ak proposition yi nga xam ne moom lañ si war a joxe waaye nag li nga xam ne moo am solo bokk na si ñu waxtaane wàllum pétrole ak wàllum gaz bala ñuy am ay jafe-jafe comme yeneen réew yi maanaam ni ñu ko amee woon Abdou Karim Fofana ministre moo doon président ni ki démb li nga ni nag mooy ñaar fukkeelu édition assise économique bi moom nag Abdou Karim Fofana daat nay wax ne proposition yi nga xam ne waa MEDES daat nañu koy def ak li nga xam ne mooy tukkee ci assise yi loolee mën naa nekk nag cëslaay ngir gouvernement bu Sénégal mën see sukkandiku maanaam feuille de route boo xam ne gouvernement bi moom la amee yéenekaay gi de la bàyyi mbir moomee wax ci groupe des médias jamono ji ñoom mer nañu ba mara day tàlli ndax ni nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne dañu leen di bund xataal ci lu jëm ci wàllum impôt nee nañu nag DSK mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon FMI moom nag ma ngi gagné ci biir réewum Sénégal lu toll ci 622 milliards boo xam ne fay a nekkee Sénégal yi ñi nga xam ne ñooy waa moom la ñuy def ci groupe des médias loolee moo mën a ñàkk yéen a la Tribune moo xëy di ko wax yéen a kaay gi de la Témoin Quotidien ak réew mi Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñi Guy Marius Sagna ni ki démb la ñu ko doon atte ci tribunalum Dakar tribunal ni ki démb dafa fees ba maara day tali Guy mari Sagna moom nag démb dal na ci kaw général Moussa Fall mi nga xam ne moo jiite gendarmerie moom Guy mari Sagna nee na nag dañu koo agressé woon fi nga xam ne mooy ñaaning mu daal di porte plainte gendarmerie te ba léegi ni mbir ma mujjul fenn moom Guy Marius Sagna démb ci tribunalum Dakar bi mu jàkkaar jàkkaarloog attekat yi nee leen nag général Moussa Fall ci boppam Macky Sall la fi nekk la yéen a kaay gi nee na parquet bi nee na ñaari ati ko tëj Guy Marius Sagna mu tëdd juróom benn weer ba pare ñu amande ku lu toll ci deux cent mille francs yéen a kaay gi nee na délibération fukki fan ak ci weeru octobre bi nga xam ne moom la ñu dëgmal la ñi nga xam ne ñooy activiste yi société civile ñoom na ñu daal di ñu xeex ngir nag Guy Marius Sagna ñu daal di koy bàyyi mu a kaay gi di Sud xëy dañu xibaar yoo xam ne jamono li ko waral bokk na na ci dund gu seer gi ak nag salaire yoo xam ne dafa tuuti ba maara détaal yi ak ñu bari ñoo xam ne ñàkk nañu seen liggéey yéen kaay gi xëy si loi de finance 2022 njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag daan nay neexal ñëpp yéen kaay gi na ne université yi di sant bi di wàllum xëy mi di jigéen ñi di ndaw ñi di étudiants yi wàllum agriculture yéen kaay gi di enquête xëy ñu xibaar naan ñu nag loi de finance budget 2022 bi maanaam cinquante pour cent lépp ci lu jëm nag ci wàllum dépense sociale la ñu ko jagleel yéen kaay en tout cas ndaw ñuy jigéen ñi ak wàllu mbay mi ñoom nag maanaam jot nañ seen wàll bu baax a baax ci mbir mi yéen a kaay gi di source xëy di ñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi ñoom Ousmane Sonko jamono ji nag ñoo ngi préparé bu baax a baax seen plan de guerre ngir nag waajal li nga xam ne mooy élection locale yi ñoom leader yi danañu def nag ay caravane yu mag a mag maanaam ci gox yi nga xam ne am na enjeu lool waaye tamit ñoo ngi xool la def ba dajal li nga xam ne mooy ab a na Amadou Ba mi nga xam ne ay jamono nekkoon na fi ministre démb daal Ba ma doon jaay maanaam Amadou Ba da doon a kaay gi nee na askan wi nag daa di riir daa di koy topp Amadou Ba nag da doon natt li nga xam ne maanaam nag mooy code de popularité am yéen a kaay gi de Le Quotidien nee na en tout cas li sala mooy Amadou ci boppam ni ki nag ma ngi doon Ndakaaru yi yéen a gi di Vox Populi nee na Amadou Ba ak Abdoulaye ñaari kàngam yi ci biir Benno Bokk Yaakaar maanaam nag seenu xeex daat nay commencé ngir nag mairie bu a kaay gi Abdoulaye Diouf Sarr ba a baax ne mooy Bamba Fall ndax Abdoulaye Diouf Sarr nee na Bamba Fall nii nga la yoree mairie bu Médina maanaam dara baaxu ci yéen kaay gi di wal fajri nee na ñi nga xam ay dauphin Macky Sall lañ ci mel ni Aminata Touré Mansour Faye ak Amadou Ba ñooñe nag maanaam ñoo ngi joué seen ëllëg ci lu jëm ci wàllum politique yéen kaay gi de la témoin nee na Moustapha Niasse mi nga xam ne moo jiite assemblée nationale te nag ñu daal koy jox ab liggéey ngir nag mu daal daal di mën a livrer yi nga xam ne tudd nañu leen ci lu jëm ci wàllum passeport diplomatique ci ay njuuj njaaj journal bi nee na Moustapha Niass mii moom tim tuddoon nañ ko ci wàllu mel noon de maanaam ci ay jaay passeport diplomatique ay chinois journal bi nee na tuddoon nañ ci Moustapha Niass na mu demee lépp nag la témoin daan na ci xëy dellu si yéen kaay gii di libération nee na am na lu toll ci téeméer juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay candidat ñoo xam ne dañoo bëggoon a dem Barça wala Barsaq te nag ñu teg la loxo ca diwaanu Kafountine ñoom nag jamono ji sonn nañu daara day taali am na ay sénégalais am na ay gambien am na nag ay mauritanien yéen kaay gi ne na en tout cas ñoom daal fay nañ seen xaalis ba pare na ñu daal leen di abandonné bàyyi leen ci benn île boo xam ne amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan ñenn ñi sax bu ñu maree maanaam ci géej gi la ñuy naan yéen kaay gi di esata xëy duñu xibaar naan ñu ni ki suba la Sénégal di jàmmarloo ak Namibie gaynde yi ñoom nag pare nañu ngir bombardé ñi nga xam ne ñooy waa Namibie El Hadji Ousseynou Diouf ci biir journal bi nee na bu ñu waxantee dëgg jamono ji Sénégal moo yor meilleure équipe